beneen jéyee boo xamante ni amat na ci li nga xamante ni moo di géej gi géej gi daal di defat li nga xamante ni moo di nam ci ndaw yi nga xamante ñoo di ndaw Sénégal yi nga xamante ñu ngi jël gaal gi wutale fi nga xamante ni moo di tugal ginnaaw benn gaal boo xamante ni nee nañu seexu suux na maanaam lu toll si téeméeri personne ak lu tegal loo xamante nee nañu gisuñu leen ñu daal di réer mër fi nga xamante ni moo di si biir géej gi. mu nekk nag bilan boo xamante ni mën nañ ne bu métti métti la nekk tamit loo xamante ni mën nañ ne lu bëree bëri la bilan boobu nga xamante ni ndaw ñu si nekkoon daal dinañu réer mën nañ ne nag am na ñenn ñoo xamante ni for nañ leen waaye for googee ñu for leen amul kenn koo xamante ni am nga li nga xamante ni ànd nga si li nga xamante ni moo di bakkan mu toll si quatre-vingt-neuf personnes yoo xamante ni ñu ngi déparé woon foofu noonu nga xamante ni moo di sa Mbour géej mën nañ ne sax ba ñu feeñee su feeñee suriwul lool li nga xamante ni moo di Mbour géej googee te ñi nga xamante ñoo di ñu di ñi nga xamante ñoo di si ñu saapoor mu mel ni kon ndaw ñi nag mën nañu jamono ji dañuy woy ba léegi di ñàkk li nga xamante moo di espoir di ñàkk yaakaar di am déception ci li nga xamante ni moo di ci réew mi di Sénégal te ba léegi ñi nga xamante ñoo ñu jiite amuñu benn solution boo xamante ni indi nañ ko ci li nga xamante ndaw ñi ñu ngi koy jël gaal gi di wutali fi nga xamante ni moo di bitim réew te lii nag nekk loo xamante ni mën nañ ne solution nag da see war a am sa na mu gën a gaawee